teew ñëpp jiital ci nuyoo bi gouverneur de la région de Diourbel Pape Gorgui Mbaye ak mboolem ñu nekk ñëpp préfet ak sous-préfet ak mboolem chef de service yi teew yëpp di leen nuyu ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa yoonu wër te lépp ñu di ko ci ndigalam ak kilifte dina jot li mu nuyoo mboolem kilifa yu tedd yi mu ànd ak yëpp daa ko ànd ak ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seq ak jotaay bi di seetlu si ñoom ngir xam ne rek sédd fi waxtu yu ak fi àdduna toll moo tax ñu tënk ko rek gàttal ko seet li mënta rek. ci ñi mënta ñàkk teew yi mënta ñàkk waxtaane ñu waxtaane ko kon gouverneur ñu ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu mboolem ñi fi teew di sànni kàddu yu gàtt rek ci niñ ko daan defee at mu jot ngir xam ne bis bi ñuy dëngal di bisu Sëriñ Tuubaa bis la boo xam ne amul lu ko ëpp ci kaw suuf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 ak séentu pay gi nga xam ne moom la ci suñu borom defal boo liggéey kon nag pëste bu ci waay amoon ak yitte ju ci amoon na ko gën a yokk ngir xam ne ndigalu Sëriñ Tuubaa te at mu jot fu mu àgg rek bu demee ne dana ko weesu kon ñu ñaan ñu àgg ca te day cee tawfeex day cee ngërëmu Sëriñ di xam ne nag fii àdduna toll li ñuy wax waaxoon man muus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 vend aussi du comité d'organisation du Grand Magal de Touba ñu ngi njabootu Sëñ Touba Pastef parce que ñoom yëpp Pastef moo ko may ñoom yëpp soo ñoom deful ko dara yomb si lépp Pastef moo ko may moom doy na tegtal si àdduna waaye di daj ci liggéey bi sa dajee tool na ko xalaat xalaatee rek xam ne sëñ bi daj ñu dugg a demee waaye demee ba mu xottox ki bu xalaatee sëñ bi xam ne ne kon moom déglu ko dara moo tax foofu nekk suñu rétroviseur nga xam ne lu nit ñi daj rek bu ko xoolee rek xam ne moom seen wet bu ànd ak ñoom leen jàppale ba màggal gii mën a mel ni mu war